mbër maa ngi. Mhm. dellu si tournoi yi. waaw tournoi yi moom waaw fa laa dugg quoi tournoi yi def naa fi loo xam ne nii mooy mooy li ma la wax rek. tey su nekkoon mbapat mooy roi des arènes dama koy jël par force. mbapat bu amoon couronne da koy jël. dama koy jël léegi su ma duggee si tournoi yi li ma fa def moom macha allah ñi ñaa ngi may seetaan ñëpp a ñuy gis. Mhm. tournoi fiñ bi. waaw damaa jël drapeau ba sonn. wallahi azim jël naa drapeau Dieynaba Fall jël naa drapeau Aïssa Sow Aïda Sow Diawara jël naa drapeau Diallo jël naa drapeau meeru meeru fii bi da ay ay laa fa bokkaloon ay champion ay ñoom njaga doole yaa may dégg uh-huh. ah ay ay ñoom ansu booy soose ansu ansu booy soose xam nga uh-huh. ñoom laa fa bokkaloon xam nga ak sama dem sama benn doomu yaay bolo ñëpp ko xam. bolo bolo la nekkoon xam nga. ak kan la xaaj bi yëpp bolo moo leen daal ay ponkal nag daal waxal de. ak kan la xëy jaaxal de. jamono ne maa ngi fàttaliku combat bolo ak Pambaay. voilà final ara Diambaay. voilà waaye loolu kenn du ko fàtte. voilà xam naa bolo après di nga ñëw su moom après. ñu loolu mooy loolu yaa may dégg loolu après ñu dugg si. Mm-hmm. yaa may dégg ay ponkal laa bokkaloon tournoi bi laa la wax di dem di ràññee di ràññee di ràññee ba éliminer ponkal yëpp ba jël tournoi bi nga nga dem ba jël ko ba jël bi. te tur yi nga tudd ñu ngi fa woon. parti Seydina Mohamed tur yëpp ngi woon foofu. billaay wallaay dëgg la nag xaaj bi yëpp bolo mën a éliminé. Mhm. xaaj bi yëpp ponk li nga yëpp bolo mën a éliminé man fële presque zone yu ma yu ma éliminé. Mhm. ay zone parcelle la. Uh-huh. ay ponkal. Uh-huh. ñu ngi woon foofu. Uh-huh. Euh, nu mu tuddati euh, kii kii mujjee daan Tyson 2 mujjee daan. Tyson 2 mujjee daan Goro Sock. na lu may wax am na lu may wax bëri na daan na benn bi.

foofu la see ay ponk la see ay Fallou Seras yàlla na ko yàlla yëgal. Fallou Fallou a bëri mhm. yeneen ponkali ponkal ñu woon foofu ay ñoom Youssou gars yi ko woon foofu. Mhm. gars allah. mais yàlla def na ma dem pare presque bëri naa àjjuma. Mhm. bëri naa samedi. dimanche moo nekkoon final yi. man maa qualifié woon final. mam Balla bu écrir Balla gi bu ne écrir Balla gi. Balla sa naagu a daan. mam Balla noo rëccil mam Balla moo ko jàpp foo xam ne baaxul ma dem jàpp rek naagu. Ah, mais attention attention attention mam Balla daan na fi ay ndaanaan. ay ndaanaan daal mais man. mën nga ko daan mën la daan mais man xam naa ne man maa naagu. barke leeru alxuraan ndax maa jàpp moo. waaw mais nooy ma mam Balla di naagu. waaw ba tey xool maam Balla bu ma daan sa maa daan li bëri foofu maa leen wàññi maa leen daan ma ñëw ci maam Balla loxo mu ñëw daan ma nga dem jàpp maa jàpp loxo bi maa jàpp loxo bi jàpp moo ko jàpp wóor ma koy manuel léegi ba ma koy manuel ma bàyyi loxo bi ma jàppoon ma suur mu wóor ma ndomba da koy manuel loxo ba loxo ba loxo bi nga ko mu jeex day loxo bi mais dama rek dem rek sama loxo bi waaye mu wër mu këf ma wër mën a temps bi mu gën a mu dem a après mu këf nii ma bañ li ñu gën nga ñàkk final bi yow yaa toog décidé ne bi doy na mbapat yi doy na maa ngi dem arène wala instant bi ñoo toog ne la hey andaw kaay dem dóorante ji il est nga dem dugg ci arène bi nu nu mu fa demee woon sa décision personnelle mbapat wala instant bi la ko waaw mbapat bi moom du mu sa doy mbapat moo doy bopp mhm. nga xamal ne mhm. mbapat yëpp koo nee mbapat mbapat dafa neex wax dëgg yàlla moo gën a métti arène mbapat da gën a métti arène de mbapat dafa neex léegi waaw moom dafa neex mbapat moom moo yàq boppam moo yàq mbapat moo yàq mbapatam mbapat moo yàq mbapatam mais ñun kenn bàyyi mbapat tey ku ñu woon mbapat te ñu ngi arène barki leer asam di dem bëri man mbapat bu mujjee bëri maa rambo la sa bopp bi ma fay 40 45 mille la ma fay man mbapat yëpp su neex mën naa la wax lépp lu leen doon ma fay ba li ma bëri si mbapat waaw mais arène bi yow yaa décidé dem wala staff bi ñoo la ne kaay. arène bi ba ma war a dugg sax yàgg na arène bi waroon naa bëri depuis 2012. sama entraîneur rôle mu ne ma dama dafa teel. Mhm. temps yooyu ma ngi ko toj ba xam. Mhm. a ne ma dafa teel xaaral. temps yooyu kenn jëlagul. Mhm. ñoom caat waalo. booy yu gërëba gars yi yëpp kenn génn guloon boobu presque maa nekkoon booy boo xam ne maa waroon génn ak Assane Thiass ak Doudou Wutey benn Doudou Wutey ku naan Doudou Wutey ak Baye Naar ñu ñoo ñun quatre personnes ñoo waroon génn Assane Thiass Assane Thiass voilà gars yi bàyyi woon xel voilà ñu ñoo ne def naa xam na ñu dal affaire yooyu léegi nag ñun ba ñuy génn pour bëre ci ay diggante entre ci la booy yi génn booy yi amaale niveau génnal ay ku ci mel ni ay ñoom Thiar ñoom Mathia ñoom gars ban année ci booy fàttaliku ban année nga bëre Euh, man soo seetloo avant ma euh, mujjee bëre parce que bëre na Pape Diagne Sera yóbbu na ma euh, fële waay njaareem mhm. ñaari combat am na njaareem dañuy def ay bëre doo kii lu mu tëri su ne su ma la dëbase yooyu ñaar yooyu yëpp yàlla daf ma ci ma am si ndam ak yooyu mhm. Pape Diagne mu may dégg ñeneen gars yi ba may dégg mhm. waaw mais bi fii nii arène bi fii ma ñëw ma laay daan ma 2000 ah, 2000 lan nga bëre sa premier combat rek Mm, Il ay année ay fin 2013 mille côté la euh, mais fii Dakar 2014 entre 2014 ak 2014 euh, 2015. waaw mais si tu t'en souviens très bien ce premier combat à da nga ñëw rek bëri grand combat. non moi mon nek sama troisième grand combat boo moo boo moo nekk 3 heures mais boo grand combat man ma laay. fii nii Dakar fii Dakar Dakar. Dakar sa premier euh, combat dans l'arène kan nga bëre. Euh, kii laa bëre euh, Alou Badou numéro 2. Alou Badou numéro 2. yàlla na ko yàlla yërëm moom tamit. metti Alou Badou metti Pikine mbooloo. Pikine mbooloo. mu nga bëre sa premier combat dans l'arène. bëri bëri metti lamb banlieue. Pape Diagne Serap Pape Diagne moo ko Pape moo ko yoroon man de Pape moo ma yor man man xaw ma woon na Pape xawma ko woon sax. finalement waaw après ma daan ko. nga bëreeg moom daan ko. daan ko waaw sa premier combat dans l'arène. waaw ma daan ko. gaa yi ne ah départ bi baax na mbër maa ngi nest pas. Mhm. parce que tu as tu as tout ce qu'il faut maanaam lépp lu ñuy xaar simplement rek boo taxawee bu la ñu xoolee dana ah mbër maa ngi nga bëree daan Alioune Fadou numéro 2 dem si yàlla si yàlla ko yàlla yërëm. sa deuxième combat nga am kan. Malaye.

yaa ngi ci état sa fuñ yëpp fu nii gars yi ñoo ñuy waxtaanee léegi damay jékki-jékki toog di entraînement nee dama dégg ñu naan booy booy booy booy waaw essayé ma la jox sama sànni njaaram fi affaire yooyu bon commencement ma ne ko Fatou Diagne Seras ma ne ko waa na naa ko xool nekkate yëpp mu may mu may bàyyi xel ma mu toog ne moom ñu Alioune Seye 2 ak Roune ne booy bi jour boobu sax caat bëri na si ma ne ko bërëm combat caat. caat ci la bëree ak seeku naa bi ta si ñoo bi ta bi ta si ñoo école bi moo faram waaw caat daan ko man man ñëw xam nga rek fukk xale bu ma sax fukk xale dafa ma war a dafa ma war a daan sax daan ma doole aussi voilà dafa ma war a daan daan ma ñëw naa indi naa sama état forme mhm. fayal nan ma saal mhm. saal naa macha allah bu nekk golf ko ñu Balla Gaye 2. Mhm. xam nga saal boobu sax weer 15000 la woon. pare woon naa ko daal pare woon naa ko trop. vraiment physiquement xam nga sama ravitaillement lépp taw féex lépp ma ñëw sama fukki affaire yooyu. Mhm. mu daan ma war ma na ma. dëgg la nag daan daan rek la. waaw carte bi ma daanee. Mhm. sama sama taat daal soxna daal carte bi la ma daanee waaye ba tey daan daan rek la. donc victoire victoire la na ma euh, bàyyi signé ba mu fa jógee rek amoon naa combat si diggante bi sax Pape Diagne Serane lépp moom mooy dégg ah. ma am sama loxo bi nee woon boobu ma da bàyyi ba su ma su ma jëlee. léegi ma bëggoon koo contrer. léegi mu ko contrer nag sa man bas ba jàll ci dox bi nii ma romb. ok mu wër ma ba ma wëree nag ma dóor sama loxo bi xam nga foo kekk la sa jàll rek kat ma maas naka de si laa tegee kadaat mais su nekkoon kekk wallaay azim du ma teg kadaat sa bi laa def su ma teg ma ma njalabaan ko pour génn. loolu moo la toog mais dama ne kat ci kii ko dóor ci kekk bi kat rek sama yaram yëpp ne maas rek ma teg kadaat mais wallaay su nekkoo amoon na suuf barki leeru alxuraan du ma su ma nee trois bi damay njalabaan def nii su ñëwee nii laay def ak jàppalaat bi day jonniwaat. mais boobu dañu ko ciy génnee parce que combat bu passé la mais nga toog des années. dama dem ba je me suis dit que man booy bi est ce que mi ngi nu mu demee noonu. waaw gis nga gis yàlla def léegi ba mu ko waaw boobu dama mu ko jugee nag ci diggante Pape Diagne woon na ma du ma wax combat ma par sama loxo bi dëgg la affaire bi ñu wàññi ne reset bi waaye loxo du bàyyi su ma leen du dem ne presque moo ci des te bu ma jógee di defe bi joxe waa ah, nga nga sama combat léegi loxo bi presque diir na mu presque un an yoo xam ne loxo bi joxewu nii day métti fii lay fii lay tengee léegi beneen année bi ma dem di dem di ma gis Pape di waxtaan ma kër yooyu ma ko àjjab léegi mu nga wàññi combat bi ñu dem di dem di dem di dem ba nii. bëri mais nag ma ko doon woo moo ma la wax. déy daaw daaw ko tuddee woon drapeau. Mhm. ñu la àndaloon man Assane Thiès la àndaloon. Mhm. Euh, fekk boobu euh, mélangeur wu Mamou Laan. Mhm. gis ma moo daf ma yeb. daf ma yeb mu ne ma jéey sa booy bii ànd ak yow sama mbër da ko bëgg sama bëgg na ko tëgg ko mun na ko kan sa mbër mun na ko maamulaa mun na ko pare nga mun a man na ma booy bi pare na su ma jigee sama drapeau bi su may tëgg sama combat dinaa woo ngeen ñëw jël seen avance. maamulaa dam bu moo moo xam nga moo ko moo faale moo ko na faale faale ko nag faale ko faale ko barki amul la uh-huh. man waat sax am man duma di waat sax waaye waat pare ma ne faale moo ko man booy faale billaay wallaay maamulaa yaa ngi may dégg billaay wallaay faale ma la sa xëppoo soo boobu si billaay combat bi taxaw nga xëboo dama lay dama lay taxaw di la seet soo xëboo soo ba pare nga xam lépp dëgg la te naa li yëpp bëri na. ah combat yi rek yàlla non may ma tuuti booy man da maa bëgg a waaw te <laughs> ah. man tukuloo naa pël laa. d'accord mais kee njaago la. waaw amul benn problème da nga dégg Grand Yoff booy gis nañ fi booy njaago gis nañ fi booy njaago may bëri moom dafa def nit ñu takk loxo bi di ko xëpp ay dret après looloo a dee stade bi commencé dëndëm promoteur bi ñëw su ma na ma amul làmb ba dem leen ñibbi ndax xam nañ ci lu bëri am nga waaw ñu mas yàlla waaw yaam dëgg neexul mm. léegi mu ne dem leen ñibbi ndax wóorul noonu lañ yàqee làmb kon daal léegi yow daal kon kon ku tegoon avance Mamou Laan bu Grand Yoff mbooloo nga nga jël ko dama koy jël ba coob ko laa la mobile su ñun la nekkoon mobile bu Grand Yoff mbooloo mobile 2 bi ñu ngay wax ni ak mobile 1 si Grand si ñun la nekkoon